أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أؤيسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحد عقدة من لساني يقول قولي الحمد والشكر معا لله على نبي ولد عبد الله ردني الله سكر إلى محادي بسكر بختمة العبد سكر ولحتى بسيما ginnaaw buñ sante yàlla subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama tasliman ñoo ngi ñaanal bu baax Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké xalifa général de Mouride suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ay cëram noonu lañ koy ñaanle Serigne Amdi moom Serigne Modou Mbenda Fall xalifa général de Baye Fall suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ay cëram ba li mu fas yéene liggéeyal maamam maam seex Rahim Fall ci toolu islam bi ñu def ci ba def ci lu kawe njortam ñu ngi nuyu ñëpp ju bokki julli yep di leen wax alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di jital ci nuyo bi wa keur maam Cheikh Ibrahima Fall yep ñong ngi leen jiital ci nuyo bi ñom ñep ñom jabot yep mbollem ci mbollem jabot yep di leen nuyu way di leen siar ci ndigalu Serigne muntaha Mbacké khalifa général de Mouride ñong ci ñong ci nuyu di leen ci siar bu baakha ak ci ndigalul Serigne Amdi moom sëñ Modou Mbenda Fall xalifa général de Baye Fall suñ borom yàggal ko fi lool te wéral ci ay cëram ba li mu fas yéenee liggéeyal maamam maam Cheikh Rahim Fall Babul Mouridina mu def ci ba def ci lu kawe njortam ndigal ndi ak ci ndigalul Serigne Fallou Fall xalifa Cheikh Sakor Fall ñoo ngi leen ciy nuyu bu baax a baax a baax a baax ak mboolem njabootu maam Cheikh Rahim Fall gi yëpp nag njabootu maam Cheikh Rahim Fall gi yëpp ñoo ngi leen di siyaar bu baax ci ndigalu Serigne bi ak mboolem njabootu. sëriñ Mouhamadul Moustapha Fall gépp mi nga xam ne mooy taw maam Cheikh Ibrahima Fall jiite liggéey bi ak mbooleem njabootuk sëriñ Bassirou Fall gépp ñoo ngi leen ciy nuyu bu baax a baax ak mbooleem njabootuk sëriñ Mor Talla yëpp ñoo ngi leen ciy nuyu bu baax a baax ak mbooleem njabootuk sëriñ Abdoulaye Fall Ndar gi yëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax ak mbooleem njabootuk sëriñ Assane yëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax ak mbooleem njabootuk sëriñ Aliou Fall Mbawor ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ak mboolem njabootuk Serigne Mbacke Fall yëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax ak mboolem njabootuk Serigne Modou Mbenn Fall ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ak mboolem njabootuk Serigne Abdou Sakkoor Fall gi yëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax te den siyaar ak mboolem njabootuk Serigne Saliou Fall ñoo ngi leen di nuyu bu baax moom maam Cheikh Rahim Fall Babul Mouridina ak mboolem njabootuk maam Saliou Fall Daarul Xafoor ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te den siyaar ak mboolem cheikh yi nga xam ne ñoo yaakaar maam cheikh Ibrahima Fall Baabul Muriid muy cheikh maam cheikh Ibrahima Fall yëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te den siyaar nuyoo bi ñu koy teg ci seen loxol imam muy Serigne Jili Mbay xalifa Serigne Ibrahima Mbay mi xam ne ni moo nekkoon ilimaani maam seex cheikh Ibrahima Fall Baabul Muriidiina ak mboolem taalib yi ak mbooleem xarit yi ak mbooleem soppe yi ak mbooleem euh, dëkkandoo yi ak mboolem euh, dëkkandoo yëpp ak mboolem euh, xarit yëpp ak soppe yëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar ak mboolem mbokki jolof yëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar bu baax a baax ci turu sëriñ bi ak mboolem euh, njabootu sëriñ baaxe gay jolof ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax ak sëriñ Ousmane Ndiaye jolof ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax a baax ci ndigalul sëriñ Fallou Fall ibnu sëriñ Abdou Sakkoor Fall Eh, ak mbooleem njabootug maam ak mboolem njabootug Serigne Abdou Sakor Fall yëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax leen siyaar ci ndigal loo xam ne nii dafa bàyyi ko ci Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké xalifa général de Mouride ñëw ci moom mooy gor bu koy gorloo nga xam ne ab gor la boo xam ne da koo jox ca Thiel jo ci Thiel Jolof Thiel Jolof la koy gorloo foofa ay tool yoo xam ne nii moom da koy liggéeyloo yónni woon fi Serigne Bassirou moom Cheikh Abdoul Khadim Mbacké porte-parole yoonu murid mu ñëw wax ko ci Isnu Rabra di tombeek nag le 16 nag lay tombeel le 16 février lay tombeel ci weer we la ñu jëm kon ñëpp ñu bàyyi ko xel te xam ne ay tool la yoo xam ne yu yaatu la ab liggéey bu yaatu la mu woo ci nag njabootu maam Cheikh Rahima Fall gépp ndax lim bokk ak ñoom maam Cheikh Rahima Fall Babul dina te sëñ Tuubaa dafa waxoon ne nit man naa euh, sant ay bokkam waaye mënut a jatt ay bokkam nit mën naa sant ay bokkam waaye mënut a jatt ay bokkam mën naa ëpp ëppale ay bokkam waaye mënut ëpp ay bokkam daal di wax ne nit nag mën naa raw ay bokkam waaye su ànd ak ay bokkam aw doxinam du rafet sëriñ bi nag bëgg nag ànd ak bokkam yëpp ci liggéey bi nga xam ne moom la ko sëriñ Touba di liggéey loo mu ci woo ñëpp nag bàyyiwut góor bàyyiwut jigéen bàyyiwut mag bàyyiwut ndaw ñu mu bokkal maam Cheikh Rahim Fall yëpp buntu kër yi yëpp mu tudd ñoom ñëpp mi ngi leen di woo ba ci kër maam Salif Fall Daaru Xafoor kon su ko defee rek dañuy jox euh, sëñ Moudou Ablaye Guèye billahi mina seytaan rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi nuyu sunu sang sunu sëriñ Cheikh Modou Fallou Fall di ñaan sunu boroom yàggal ko fi njaboot suñu bi sakkoor gépp di ñaanal mboolem taalibe yi sunu borom dolli leen ak wér ak kàttan ban mën a ànd ak sëriñ bi ndigal li ko sëriñ bi sant eh, bu nuyoo sëriñ bi rek mooy nuyoo ñëpp kilifa ñu ngi teewlu di wax ci kàddu sëriñ bi mi nga xam ni mooy sunu kilifa ci liggéey bii ko Cheikh Mouhamadul Mountakha jox mu jugee ci. kilifaam di gor bu muy am fële te Thiel ci mboolem ñi nga xam ne dañoo aju ci sëriñ bi dafa ci wàllu Touba ak Mbàkke te liggéey bi di liggéey boo xam ni sëriñ bi daf ko fonk ba wax na ni képp koo xam ne aju nga ci kër gi ak képp ko di soppe mi ngi la ciy woo ci liggéey bi nga xam ni sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha da koo jox Cheikh Mamadou Fallou di ci jiital nag daayira yi nga xam ne ni ñoo aju ci kër gi di ko tàmbalee ci daayira laa bi nga xam ni njiitul daayira bi mooy sëñ Abdou Sakkoor Diop moo xam ne jiite daayira bi ñu ngi koy woo ak mbooleem képp ko aju ci daayira bi di woo waa jannatu salaam sëriñ usmaan Guèye ca Touba olom ga ñu ngi koy woo di woo waa Tawfeex sëriñ Biram Guèye ak mboolem njaboot gi nga ko àndal ak taalibe yëpp di woo sëriñ moo taalu mbóoj ca daaru tanzil ñu ngi koy woo ak mboolem ñi aju ci kër gi soxna yi nag ay jàmbaar lañ ndax ñoom liggéey bu ñëw kenn du leen ca man ñu ngi ciy jiital soxna Ndey Faal ndax moom mooy kilifa liggéey bi ca Touba Ndaamaatu ñu ngi koy woo ak mboolem waa euh, Ndaamaatu gépp ak ñi mu ko bokkal di woo soxna Aram Seck ca Touba Baye Fall ga ñu ngi koy woo ak mboolem ak njabootam ak taalibe yëpp soxna Jee Faal Daru Tanzil ñu ngi koy woo ak mboolem ñi aju ci liggéey bi di jiit di woo Serigne Cheikh Awo ca Touba Mbacke ak Darou Marnaan ñu ngi koy woo di woo mboolem ñi ngànk liggéey bi yëpp ci fédération Kër Serigne Abdou Sakor Fall di wax ni Serigne bi nag dafa wax ni képp koo xam ni sa yaakaar mi ngi ci Kër Serigne Abdou nga ñëw ca liggéey ba ak mboolem ñu ngi koy àndal njaboot geeg mboolem bul fa bàyyi kenn addiye yi tamit képp koo xamee ni nii am nga looy joxe Serigne daayira bi nga xamee ni eh, mooy fédération bi. rawatina eh, section bi nga xamni ñing koy wax ñepp di ko bok ci ñu bari muy xidmatu cheikh abdou sakour ta njit la ci bok di eh, jaurinja je serigne abdou sakour bey eh, ñu jital ci sëriñ Baye Ngunda Fall ak serigne Ousmane Touré Baye Fall kep ko xam yaangi ci biir rew ak bitim rew sa addiya bu jaaree ci ñom wacc dina ak ci liggéey bi ta njabot gi nga am ci rew mi nga yabal leen ci liggéey ba nak serigne bi kat addiya ji kat fu ab talibé di liggéey ñi ngi wote addiya waaye jëf ji kat moom la sëñ bi gën a soxla ca liggéey ba kon nag fépp ab taaliba nekk ku nekk bitim réew te am ngant te sa njaboot nekk fi tamit nga yebal leen ñu ñëw ca liggéey ba. salaamaaleykum bokk taaliba yëpp bokk mbir yëpp ñu ngi ñëpp di ñëpp di sant bu baax nag ci ndigal jox jëm ci kër si Abdou muy ndigal loo xam ni mooy mooy suñu njëriñ tey ak ëllëg ndax kat taaliba amul leen lu ndigal rawat na Baay Fall. ndigal la jóg na jóg du kër si Abdou Sakor Fall ndigal la fu ma saa jógee jógee suñu tubaab du kër si Abdou Sakor Fall du boy kër si Abdou Fall yëpp a kon ñu ñaan sama ñu ñu ah, nañu daan eh, ndigal bi yi jaar yëpp mu jaar ko ba jeexee ci jàmm ak salaam ñu ko bëgg ñu defe ko nii ñu ngi woo ñëpp nag soo ñëpp kër si eh, kër si Abdou Sakor Fall rawatina kër ñu ñaan sama bon def ñu dugg si melaam dem leen si yoonam du laay defal amine barke si yàlla sa koor barke sëñ Fallu soñ yëpp rek bàyyi wuñ kenn kuy murid rek xam ne bu sàkkee lépp jeex na bu wootee war nga wuy si jërëjëf sant naa ñëpp gërëm ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu mbokki jullit yëpp yëpp di turu suñu kilifa Cheikh Mouhamadul Fadilu moom sëriñ Abdou Sakour di jaare ci ab nuyoom di nuyu suñu Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne moo fi nekkal yoonu murit di ko ñaanal sama borom yàggal ko fi lool te wéral ko noonu la ñuy yeggee suñu nuyoo ba ci sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda mi nga xam ne moo fi toog toogaay maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal sama borom guddam guddal fanam te wéral ko te yàggal ko ba liggéeyam bii mu naan ci ëttub maamam sama borom yeggal ko ko ci ni mu ko bëggee di jooxal rek ndigal loo xam ne mi ngi bàyyi ci suñu kilifa gii ñu toogal muy sëriñ Fallou di xalifab sëriñ Abdou Sakkoor ak mboolem njabootu sëriñ Abdou Sakkoor gépp yegg ci sët yi nga xam ne ñoo sëtu ci sëriñ Abdou Sakkoor ñuy woo ñëpp ci ndigal li nga xam ne moom moo jóge ci sëriñ Mountakha ñëw ci sëriñ bi sëriñ bi wax ne mi ngi ciy woo mboolem sëti sëriñ Abdou Sakor yi nga xam ne ñu ngi ci tund wi fuñ fuñ fuñ mën nekk rek ak mboolem turandoo sëriñ Abdou Sakor yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ak ñu newul ci biir dëkk bi fépp foo xam ne ab taalibe ngi fi daal sëriñ bi mi ngi lay woo ci liggéey bi ndax ab taalibe moom amut lenn lu dul ndigal te ndigal bu jógee jóg rek moo ñu war te moom mii kat yàgg nañoo wax nañu ndigal moom bu jógee rek amatuma lenn lu may déglu dem ci la rek kon nag képp koo xam ne yaa ngi doon déglu ndigal tey xaar bu woote nañ daal di jóg te xam ne ndigal li nga xam ne moom la ko sëriñ bi jox ànd na ak tawfeex ak yaatal ak liggéey bu kawe kawe kon nag ñun ñëpp ñu gën a takkaat ndigg yi te yeesalaat laxasaa yi te gën a waajal ko te xam ne li ci sëriñ bi bëgg rek mooy li nga xam ne moo ñu ci jariñ tey ak kon sëriñ bi wax na ne mi ngi ci soñ mboolem taalibe yëpp ñi nga xam ne dañoo yaakaar maam Cheikh Ibrahima Fall ñi ko mataar ñu ngi limee léegi ci liste boobu nga xam ne li ko tàmbalee kër sëriñ Modou Moustapha Fall ba ci kër sëriñ Saliou Fall Ngunda ak Mam salihu Fall bu daru xafoor ñi ngi ciy woo buntu kër mam Cheikh ibrahim yoyu yëpp ñu ñew ci liggéey bi nga xam ne nii lañ jox Serigne fallu te mu fas ko koo and ko ak ay bokam motax mu yaatal ko liste bobu ngir wo ci bokam yoyu yep ñu ñew and ak mom ci liggéey bi nga xam mom ci liggéey mam Cheikh ibrahim Fall ak mboolem kilifa go xam yaang ci yoonu mourid tey déglu kaddu ndigal ndax ndigal mom bu jógee ñepp nga ci biir ko xam ni ndigal rek ci biir ndigal lool motax serigne bi yaatal ko di ci def ak yaatal ngir digganteem ak ñepp ndax moom ñëpp la am leen teel jàmm waaye ñëpp lu seqal ak wóol ak rafetal la nga xam ne it moo ci topp mooy mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bii nga xam ne moo di Touba sëriñ bi wax ne na mboolem fu fi ab taalibe nekk nekk wala ngay soppe mbaa ngay wëllëre nee na nañ daal di waaj ñun ñëpp te fas yéene takk suñuy ndigg bis bi nga xam ne ci la ñu war a départ bu jotee ñëpp ñu ñëw fii ci kër gi fii ci kër Sëriñ Abdou Sakkoor gi fi la ñuy déparé jëm ca liggéey ba nga xam ne ma nga ca Jolof ceen ceen Jolof waaw ca Thiel ca Thiel Jolof kon nag ñun ñëpp ñu waaje ko noonu te bàyyee ko koo xam ne yaa ngi Touba rek nga waaj ko ba loolu bañ laa bett ña nga xam ne tamit ña nga nekk ci tundu Jolof mooy xam waa Touba Linguère ñi nga xam ne ñoo fa nekk di njabootu sëriñ bi séeréer yi ak naar yi ñëpp sëriñ bi ma nga leen woo ci liggéey ba waa Ndoka Sarr yi nga xam ne tamit ñoom naka jekk di njabootu sëriñ bi ànd yàgg ànd ak sëriñ Abdou Sakkour sëriñ bi nee na mi ngi leen di woo ci liggéey boobu ngeen ñëw ànd ko ak moom ñi nga xam ne ñoo mooy daayira bi xam ne ñoo nekk Ndakaaru ñoom ñëpp it sëriñ bi mi ngi leen di woo góor ak jigéen mag ak ndaw baywul kenn ñi nga xam ne ñooy dayre bi nga xam ne ñoo nekk Thiès ñoom ñëpp it sëriñ bi mi ngi leen di woo góor ak jigéen mag ak ndaw baywul kenn ñi nga xam ne ñooy dayre bi nga xam ne ñoo nekk Kaolack ñoom ñëpp it sëriñ bi mi ngi leen di woo góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwul kenn ñi nga xam ne ñooy daayira bi nga xam ne ñoo nekk Mboro ñoom ñëpp tamit ci tund woowu sëriñ bi mi ngi leen di woo góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwul kenn ak mboolem dayre yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal gépp ak mboolem taalibe yi nga xam ne nii ñooy tuddoo kalimatu laa ilaha illallah te aju ci kër maam Cheikh Ibra ak fu ñu fi mën a ajoo kon nag ndigal laa ngoog woote baa ngoog sëriñ bi nag dafa wax ne ndigal day jëfe ko lëndëmuk fajar la loo ciy gën di xuus muy gën a leer ñàkk gee jëfe nag lëndëmuk timis la looy gën a dem muy gën a lëndëm kon nag na ñu yàlla dimbali ba ndigal li saa su ñëwee ñu defe ko ni ko sëriñ bi bëggee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ bi nee na asalaamaaleykum. mi ngi nuyu bokki taalibi yëpp. bi nee na mi ngi nuyu bokki taalibi yëpp. dëkkandoo di nuyu dëkkandoo yi ñi di nuyu ñi nga xam ne ñoom la bokkal Cheikh Rafal rawatina rawati Ibou Sakkoor Fall gi nee waa kër Sëñ Ibou Fall maa mi ngi ci woo Sëriñ Moudou Mourtala euh, Cheikh Mourtala Fall Sëriñ Aliou Fall Sëriñ mustapha nee na ñoom kat nañu xam ne ñoom ñooñu ñooy jëwrin yi nee na liggéey bi ñoom nañ xam ne seen ab liggéey la neen dañ koo teg rek moom ci loxoom. waaye neen lépp luy doxal kër Sëñ Sakkoor Fall. nee na ñoom ñooñu kat mu lim ñoom ñoo ko yore. nee na kon na ngeen xam ne yéen ñoom la yéen lay waxal. nee na yéen na ko jotali ci taalibe yi. ak kóllëre yi. nee na ña moo xam ñu yaakaar Sëñ Sakkoor Fall. ak soppe Sëñ Sakkoor Fall yëpp. nee na ñu xam ne Sëñ Sakkoor Fall moom ndigal. su ma saan jógee kër Serigne Touba ñëw ci moom. am balaa am jàmm moom loolu daa noppi. bu la ko fekk. bu doon tey moom fii mu nekk nii fi la ko fekk. nee fa mu ko déggee rek la moom lay daal di gonte moom si sa kër jëm ca tool ya. du du fa xaar mbaar. dafa xaar sàkket yi ñuy defar du dem ci garab nee na ci digg tool ya lay nekk banam jeexe nee na kon nag nee na ginnaaw loolu ñoom mënuñu ko xëy na waaye nee na ñoom kat dañuy jéem rek waaye nee ndax ñoom kenn mënu leen a dab waaye nee na ñoom ñi ngi jéem de nee na buñ jéemee rek nee na ñoom ñoo ñëwee ñoo ñëw gàttandu leen àggale neen ba lañ bëgg a defal sëriñ bi nee na ñu defal ko sëriñ bi kon sëriñ bi nee na ndigal la ngoog ku ci bëgg a jariñu na nga ñëw nee na mooy jariñe tey ak ëllëg nee ku bëgg xéewal na nga ñëw nee na lu ci waay fas rek da nga ko ca am tey ak ëllëg kon sëriñ bi nee na jërë ngeen jëf ñëpp wax nañ nee na ñi war a wax ñëpp wax nañ nee na liñ fi war a wax lépp wax nañ ko nee na kon nag ñun nañ am aw déggin nee na wax kat li ci am solo nee na ak dégg da cee am solo nee na liggéeyal sëriñ bi nag nee na amul retraite naa démb. amul defoon naa démb. nee na defon na dembu tay duma def tay neena naa liggéeyal naa sa waajur. nee na amul liggéeyal na sama waajur liggéeyaloon ma. kon liggéeyal na sëñ sakor kon liggéeyal naa sëñ Sakkoor. kon waruma ñew tay neena waruma ñëw touba kat amul loolu. neena na yaangi man rek. jema la dem. so munta dem. nga joxe la nga am. ndax neena yoonu Baay fall kat non dong la. ak jëf ak ñukki neena lool nak lo ci man nak nga dem defal ko sëriñ bi sëriñ bi neena jere gene jep jëf ñeen mi ngi sant tay gërëm bu baax neena lool rek mo ci passef bi neena wax ji amul solo bari gi amul solo neena jëf ji rek am solo jere gene jep la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha 呼啦啦！